Bassirou Diomaye Faye Sénégal tànn na Bassirou yi am na ay semaine ci ginnaaw dañoo jóge fii ci mairie Parcelles Assainies di dox di dox jëmale fii ñu egsi fii ci tournal bi policier Macky yi di ñu sànni grenade lacrymogène tongali ñu ba fii dàq dispersé nous nous filles, nous avons fait amal manifestation tey yéen askan wi manifestation par force meeting par force campagne électorale par force élection par force bravo à vous peuple sénégalais mbokk yi ñu ngi fii Parcelles avons fait waxee Parcelles Assainies Fatilikou Cheikh Wad. Cheikh Wade Cheikh Wade bon continue à yi nga xam Macky Sall moo leen donc pour les amal une pensée pieuse une pensée forte pour Cheikh Wade tous les martyrs des Parcelles Assainies mais tous les martyrs du Sénégal mbokk yi bu ñu mës a fàtte ñoom Cheikh Wade ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne Macky Sall moo leen boom ndax ñooñu dañoo cotiser seen bakkan ngir beneen Sénégal ndax ñooñu dañoo cotiser ñii seeni cër pour beneen Sénégal ndax ñooñu dañoo cotiser seen liberté maanaam seen perte ngir beneen Sénégal ñooñu dañoo cotiser seen xëy ak gontu dañ leen fa dàq ngir Sénégal. ñooñu dañoo cotiser seen xaalis ngir Sénégal yéen da ngeen cotiser seen lépp ngir Sénégal bravo à vous. mënuñu ñëw parcelle te tudduñu Cheikh Wade tudduñu tous les autres martyrs mbokk yi fii mooy Parcelles Assainies waaye boo doxantoo unité 1 ba unité 26 xam ne Parcelles Assainies wuyoowul turam xam ne Parcelles Assainies dese na Assainies

notre gaz aux industries capitalistes et qui laisse très peu au peuple sénégalais. Assainir notre système de santé, système de santé caractérisé par le fait que il y a tous les jours cinq femmes qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. Assainir ce système de santé caractérisé par le fait qu'il y a tous les jours 50 enfants de moins de 5 ans qui meurent, de aiguë et que sais-je, d'autres maladies à Assainir notre système scolaire et universitaire. Cette c'est une constitution sur une constitution d'époque nul en tant qu'ASCAN, askan une constitution bañ copier coller constitution France du haut dans France tu du haut Sénégal li mon coalition Diomaye président moo tax ñun ñëpp dañu yore suñu carte votel Bassirou Diomaye Diakhar Faye fi may tàmbalee rek mooy benn yoon laa dem seeti Bassirou Diomaye Diakhar Faye kaso benn yoon ma toog ay weer Bassirou Diomaye Diakhar Faye yebal ay nit ci man ne daf ma soxla gis ci kaso bi

Bassirou Diomaye Faye dina ma yebal Ngalla Ñaaw pour ma uti ko cere cere saaj Bassirou Diomaye Faye nen ma kii Marius Sagna dama bëgg ma ministre des finances lan société bu ñuy wax SGO waroon fay milliards d'impôts de francs CFA dama leen di nettali loolu pour ñu gën a xam lan moo tax ñu war a voter Bassirou Diomaye fay parce que même dans les zones obscures et ténébreux du président Macky Sall Bassirou Diomaye fay continue à réfléchir pour le Sénégal à défendre les richesses du peuple sénégalais ma foog ne jeex na mu ne ma Guy yu Sagna dama bëgg nga dem enquête ca Thiès benn quartier bu ñuy wax muurkat dañoo daggati ay parcelles ñu koy caxat-caxatee seen biir di ko ba askan bi amul dara bu ngeen xoolee samay initiative parlementaire ci mois de novembre wala décembre de naa ñaari initiative parlementaire sur le cadeau fiscal de 136 milliards de francs